Bienvenue sur votre site d'information Tivactu TV la chaîne de toute l'actualité. les classes ñu ni loolu ñu buñ ci buñ ci seetaan préfet def CDD ñu laaj inspecteur lan mooy soxlaam mu ni mi ngi soxla masque pour enfant douze mille cent trente cinq mu ni soxla na ay lave-mains gel hydroalcoolique mu ni soxla na 345 saabu mu ni soxla na 400 4200 morceaux soo xoolee lii dafa intégrer les écoles primaires dugal ci les collèges dugal ci les écoles privées ñun xëy na mairie Tivaouane li ñu dégg mooy école primaire hmm. xëy na tey dañu waroon 32 écoles primaires lan moo jëm ci ñoom ñu ut ko mais muy privé muy surtout les collèges ñëpp ay doomu Tiwaawan la kon lu ñu mën ñun ci taxawu leen dañu leen taxaw c'est-à-dire que devant l'urgence ay compétence amatul moo tax bi ñu waxtaanee ci bureau municipal ñu ni comme mën nañ ko nañu fexe ba réaliser ko à 100 pour cent maanaam jël en charge euh, li nga xamante ni yëpp nekkoon na seen seen soxla pour l'instant en dehors des thermoflash nga xam ne te ñoo ci gën a cher mm. te ñu ngi utaat pour compléter ko dinañ ko joxe ba mu mat sëkk tey jii dinañ leen jox ab 10 000 te on va compléter li ci manqué parce que production bi moo toll noonu mais tey jii rek dinañ mettre à votre disposition les 10 000 lave-mains yi dinañ joxe les 132 gel hydroalcoolique laajoon ngeen ni 345 dinañ ko yëkkati teg ko seen loxo savon yi les 4200 morceaux yi dinañ ko yëkkati teg ko ci seen ci sa loxo inspecteur. pour dire que la mairie il faut vraiment xam nañ ni état dina ñëw lii dugal na ko ci biir mais ñun on a voulu vraiment être aveugle li état di indee li yeneen structure yi di indi ñu ne ñun on fait comme si ñun rek ñun ñoo am luñ leen euh, luñ leen luñ leen ñu ñu jox leen mooy yii ngeen gis la la ngeen gis la leen artisan Tivaouane waa moo ko defar am lu ñu ci defaraloon moom it nañ xool école bu tijjee luñ ci mën a defaraat yóbbu ko ci école yi ñu ñu def ko donc lii daal moo doon soloy ndaje mi li ñu fiy dajale woon ñu bëggoon symboliquement nag remettre à l'inspecteur li nga xamante ne nii lim naa ko léegi te lépp teew na incha allah su ñu ko joxee à partir d'aujourd'hui ngeen mën a xool naka ngeen koy déployer. may remercier le président du conseil communal de la jeunesse Pape Demba la Croix-Rouge les ASP les jeunes de manière générale ndaxte non seulement bind nañ ma li lii ñu laaj monsieur le maire loo ci mën def ko ci. mais ils m'ont dit leur disponibilité pour accompagner l'inspection dans la mise en place, dans la sensibilisation. naa leen dinaa leen jox oto jox leen carburant jox leen ay collation pour que ngeen accompagner lu l'inspecteur fu mu leen soxlaa rek ngeen euh, ngeen jàppale ko mais ñoom ñoo manifesté vraiment la volonté depuis que mettre nañ en place li ñuy woowee le comité communal de lutte et de riposte contre le Covid-19 de suñu frère Pape Talla Dièye di ko coordonné sous la présidence bien sûr de la municipalité li ma fi wax yëpp ñoom ñoo koy liggéey di ma rendre compte c'est égal c'est également une occasion pour que ma remercier leen féliciter leen et surtout également la distribution biir yi président ñun dañ ñoon bokk ñu ko jiitu ci dara parce que euh, moom moo am initiative bi jàppale nit ñi bi ñu demee ba xam ni koor gi ñëw na te état di joxe dañ ko jaarale ci yoon boo xam